dikkati na yeewu askan wi day xar na ñaar Walf Quotidien koo xam ne tribune yéen a kaay ne ko kaay balaa ngay sori ma xamal la ni nag ma ne la Benno Bokk Yaakaar moo njëkk xar ñaar bal tàkk sagar xeeñ réew mi coow ko joobe ko yéen a kaay bi dee média bi ma tey lii la xëy ak yéen Amadou Ba mi nga xam ne nag war na janoo ak candidat yi nga xam ne dañoo xëy daal di ne président Macky Sall ñoo tey dem ñoo yey dem dañoo samp suñu ndënd gu waroo ak nga xam ne moom nga ñu tànnal daal di ñaabar ñaabari wax seeni grand bubu daal dina sàll ngaari lam ay baay ñoo ngi sunu yoon te xam nga ñooñee bu nu jàkkaarloog Amadou Ba dana mel ni la taasukat ba ne woon boo sàllar ñi koo sër du la wodd tribune yéene kaay ne la guerre des trois daal faw mu am diggante ñoom Amadou Ba Mohamed Boun Abdallah Dionne ak Aly Ngouille Ndiaye moom Mohamed Boun Abdallah Dionne l'observateur di ma xamal ne ka sañul woon dëkk président Macky Sall tey jii day moo koy rogo jeeru fëgg dëndam ci kanamu Sall nag naan koo ndënd li force la léegi nag ma ne la yemu ca daf caa boole dem ci plateau yi mel ni ko am fit nag di jàkkaarloog Sall di ko joyoon teg di ko defaral toogukaayam Mouhamad Boun Abdallah Dionne l'observateur naan man takk na fit wa turbine yéene kaay naan man te fit woowe ñu takk baaxul ci Amadou Ba ñu wax ko te Fatou Ba dund rek baaxul mukk ci Amadou Ba vox populi naan man en tout cas lu baax ci Amadou Ba de ca njum day mobilisation gu doy waar Cheikh Omar Anne mani la mel ni ku naan fii muus du fi naane ñeex ku jàppale Amadou Ba ak président Macky Sall ñu def ko ku ko deful ñu def ko daal di mobiliser ci final boo xam ne daanaka département bu Podor yëpp génn te coow li li mooy maire bu njum nee gi lenn la moom moo di daal di dajale waa Podor gi yëpp ngir ñu xoolandoo fenn mooy fexe man la ba yeggali yéen ak président Macky Sall fal Amadou Ba ndaw ya génn kay di félicité président ki Sall ci réalisation am responsable Benno ya daal di génn askanu Podor daal génn Cheikh Omar an naan leen fayee naar yu xoromam moom moo di fal amadu Ba ngir yéene président ma ki Sall mën a mat ci réewum Sénégal waaye nag Podor nañ ci jiitu ndax nag Podor ci boppam titre foncier bu président Macky Sall la te at wu yàlla sàkk nag askanu Podor di ko lañ ko bëggee lii ko di jee naan man démonstration de force daal la Cheikh Omar Anne def sa njum te yéene gi moom moo di palluk Amadou Ba ci élection présidentielle tribune yéene kaay naan kon Amadou Ba bu mu fàtte mukk ne ci biir coalition ci boppam am na ñoo xam ne rocceeku doon génn samp seen dënd fas yéene jaamaarloo ak moom te loolee ma la bu ko doggaliwul fa yallaaxu ngeen xam ni der la waxtu woow tribune yéene kaay naan man daanaka élection présidentielle 2024 yi baa ngi nii ci bitti a gën caa farlu waaye itam gën caa mën a day di daa ko parti démocratique sénégalais nga xam ne yaakaar amoon na ci ñu foqar ci nguur gi fi mu ne ñu ngi ni nemm dóoruñu paasuñu xeexuñu attewuñu xeex fukki at ak ñaar ci ginnaaw fa ñu nekkoon parti démocratique sénégalais passé wu ko yeewi askan wi moom daal dinay tas tasar Walf Quotidien naan lii laa waxoon di yeewi askan wi daal dinay tas réew mi Quotidien naan ko diggante Pastef ak taxawu ñoo ko daal di tas l'évidence ba nga xam ne ña ngay taxawal bureau assemblée nationale ba biram su lay jóob ñaabar ñaabari joxe seen waa bureau ndekete defu ca nag député yu taxaw ya député yu taxaw ya mer ba futu daal di baare seen bopp ca liste ya ne daal dinañuy la ci groupe parlementaire yeeyu askan wi l'info yéene kaay naan man mbéj tàpp wala xët en tout cas fayantoo la vox populi naan kon fayantoo gi sax dafa yàgg la amoon ca Abbas Fall ca mairie bu ndakaaru biram su lay jóob fayul na ko ko bar ci démb ci assemblée nationale yéene kaay bi naan fayantoo goo xam ne ma ne la daal dinay doggale taxaw waaye tam daal di xar xar-xareet yeewi askan wi nga xam ne soxlawu ko moom yeewi ci boppam ñett ci bureau ci assemblée nationale ñàkk na ko ndax ay député yoo xam ne wàññeeku nan moom Birame Souleye Diop nekk ci ruqam di teex teex may ree aba mbay naan soxor ñàkk xam politique ni muy doxee lii nag mën naa xañ yeewi askan wi doxalin wu baax ci assemblée nationale ndax nag fi mu ne lii ñu def nii kenn du ca gañe ku dul waa Benno Bokk Yaakaar nga xam ne dañu naan faax ca assemblée a na ma ban leen foqartee génne leen fi mu ñoom amuñu fenn foo xam ne foofu lañ mën teg seen i bagage bokk ci groupe parlementaire ba tur bi naan kon candidat yi ci biir yéen yi kan bari nañ lool yéen kaay bi des média bi naan waa opposition bi jël leen siis nag ma yedd leen ndax nag fi ne ñi ngi jëm ci élection présidentielle yoo xam ne kenn mënta fa gësa danu ne maay am ndam te ku ne maay gagné premier tour wax nga la la neex rek jaaxaan outsider yi nga xam ne noonu lañ leen dippee sax ma ne la mën nañ dugg palais tout moment bennoo ci boppam ma nga xam ne moom lañ jàppee woon favori tey jii ay chance am nekk président day wàññeeku na ndax ñoom seen biir dañoo xar xareet ni lekkat gu bàyyeekoo ñeen fukki étage tab bi suuf opposition bi nag leen dong moo ko mën a jox nguur gi mooy ñu booloo doon benn daal di booloo ci pôle goo xam ne ñoo leen di may doole may leen sañ-sañ ngir ñu jël réew mi l'enquête quotidien naan kon boobu Thiès day kenn gisu fa Idrissa Seck ñuy gën di deltu ginnaaw ca Thiès googee siggi jot na bu Abdoulaye Dieye daanaka di raatale Thiès googee moom jiital AIBD nekk en ordre de bataille ngir nag parrainage ngir élection présidentielle yi Thiès kaay benn takk ñaari gaar mel ni ku nekk ci loxoom yéen kaayub dee média bi naan man boobu day candidat yi tey la gën a sakkan wala Mohamed Fadel Koné kenn la ci ñoom yéen kaay bi samp bu laaj ci kan mooy ki nga xam ne moo xam le ni wàlluk civisme ak wàlluk citoyenneté buñ ca jaaree day Sénégal daal di ñoŋ waa grand place naan man Alioune Sarr it candidat la ma ngay xam le ni nag or bi ci réewum Sénégal buñ ko exploité andi ci ay saafaraaki réforme naka la ñu mën a yokkee juróomi téeméeri junniy milliards ci koomu am Sénégal ci tournée ga mu nekkoon ci biir réew mi njiital CAP 2024 di mairie bu Rajo Baas xam le ni Sénégal daanaka talent gi ci wàllu bijouterie du fi jeex te or gi ma nga ci Kédougou ci réew mi Alioune Sarr ne bu ñu ko exploité ci anam wi gën daal di jox gëdd ñi nga xam ne ñoom lañ duppee ñu bijoutier yi Sénégal day mën na caa am alal goo xam ni deesu kon ko naatable ci réew mi Alioune naan Sénégal mën naa bañ a jéegaani comme fenn ndax am na lépp fii l'observateur naan ay kàngam kayin ci réew mi moo tax ñu leen di takkal ay raaya fu saay def nañ ko meilleur investisseur bu Afrique de l'Ouest l'évidence ne ma Dakar dem dikki ak directeur général ba ci galaayu téeméer entreprise ak manager yi nga xam ne ñoo ëpp sañ-sañ ak pas-pas ci réew mi daal dina leen fay tabbal ay raaya gannaaw fukki weer ak benn yoo xam ne daal dinay taxaw ci kanamu Dakar dem dikk moom Ousmane Sylla di maire bu Kédougou waa galaa bi ne ko joyanti a Dakar dem dikk te mu naan leen it yeneen defi mi ngi ñëw ndax fi mu ne nag bëgg nañ daal am ci biir Dakar dem dikk rawatina nag yombal askan wi dem beeg dikk bi tribune yéen a fi day ña ngay bëgg lu yomb waaye nag Wack Ndiaye consultant la nangay wax nag ci vaccin yi nga xam ne fondation Melinda ak Bill Gates ñu ko def ci réewum Sénégal muy laajte nag ndax loolee ci wàllu technologie du lu mën a indil jafe-jafe dénduk Afrique l'observateur naan kon jafe-jafe yaa ngi de waa ji xaritam na fay junni ngir mu andil ko ab xale bu jigéen buy jaay boppam waa ji kottu xaalis ba daw xarit ba fekk ko fa mu nekk junni barre de fer tëll ci bopp mu daal di xëm mu ne sama junni bi ak lu mën a mbokk yi ñu ñaan jàmm te ënd ak jàmm ndakaaru ñaareelu édition journée fitness parcours sportif SDE ak VDN la ñu ko amal ci njëxtalu ay bés bi mu ne nag mobilisation bu mag la ñu sa nemmeeku ci ay anciens membres yu parcours sportif bi waaye it yeneen ci ay club fitness yu bawoo ci yeneen gox yi ñoom ñëpp dikk nañu di sàkku nag ci askanu ñuy baaxoo di eh, def tàggat yaram ndax lu am solo la ñaan da see soxna Fall Babacar Maar président parcours bi secrétaire général bi ak kenn ci coach yi di wax li nga xam ne mooy njariñ bi ci sport ci wàllum santé nga xam ni lu am solo la ci seen wàllu activité. xam ne ni la jeunesse euh, est unie benn kese lañu ñu xam ne ni àndandoo booloon nekk benn say mooy tax ñu àgg si fu ñu bëgg a àgg. bi mooy ñaareel yoon ñu koy organiser boo gisee ñu koy def euh, dañuy bëgg maanaam ñi nga xam ni ay doomu aadama lañ di fi romb di xam ni vraiment sport lu am solo la. invité club yu bari. comme euh, Warriors My Fitness club yu bëri parce que loolu moo ñu motiver at bu nekk dañ koy faral di def fii mais boo seetlu at bu nekk aussi dañuy gën a avancer parce que dañu doon invité benn parcours mooy suñu ji mooy nekkee fii sport famille campénal bi. ba tax na ngi woon ñëpp ñuy pratique sport bu baax adapté wu ak bu régulière. nit ki ni muy joxe euh, yeneen yëf yi. Euh, temps am noonu la war a jël temps def ko ci sport am pour yaramam ànd ak wér-gu-yaram. am na ñu fi ñëwoon yàlla def ñu amoon ay jàngoro seen jàngoro dellu na ginnaaw am ñu sax wax dëgg yàlla léegi wér nañu parce que ku dem ci médecin léegi li mu leen njëkk a wax mooy est-ce que yaa ngi def yaa ngi sport wala yaa yaa ngi marche. sport amul âge même boo amee 30 ans 40 ans 50 ans dangay def sport rek. muy góor muy mag muy jigéen muy ndaw muy xale ñu ñu ko invité pour mu mën a def sport ak ñun. ci teewaay ay invité de marque journée de finesse bile ci ambiance bu neex la daal di jaajëf soxna Fall tàggat yaram ba tey sa commune bu jàmm gën Sicap Mbao euh, bon lieu Ndakaaru Ndiaye 14 millions ak genn wàll la commune ba ci boppam daal di génne jébbal ko ASC yi ñaar fukki ASC ak euh, ñett ak mboolem euh, kuréel wala sax mboolem xeetu tàggat yaram bu nekk ca diwaan ba bëgg-bëgg moo di ñoom ASC yi wala ñu yëngu tàggat yaram ñu mën a demal seen bopp mu ne nii it su loolu weesoo génn na junni chaise jébbal ko ASC yi ak groupement de femmes yi ngir mën a maanaam jàkkaarloo baax mën ko jëfandikoo su ko defee ne dépense yi ñu mën ko caa fecc mu ngay euh, sàkku ci euh, ASC yi rawatina ñu nekk ca gox ba ñu def seen kéem kattan ba loolee ñu leen jox ñu bañ koy yàq euh, Cheikh Aliou Bey député maire bu jàmm gën si Bougane Gueye Dany plaide pour la multiplicité des centres de soins loolu combat boobu bu bu teeloon di ko def dañ naan xoola day doon politicien mais bu demee ba xam ne tey jii bu jógee ñu ne kii kat bu jógee war naa jóg bu jógul sax la heure bu jógul woon ñu nekk ci lu tax jógul mais heureusement ba mu jógee ndax ñàkk la si ñu jóg porté combat bi fu mu nekk nii moom euh, Bougane Gueye Dany jëm ci xeexum cancer bi nga xam ne canceru euh, canceru ween la yéenekaay bi daal na ciy dikk ba tey ñu jàll ci actualité bi mu ngoog laaj yéenekaay nee na le groupe Yewwi implose au grand jour lii lii moom bettul woon kenn ñëpp xam nañ ko nee nañ bettul à tout moment dañ doon xaar sëy bi tas parce que tasoon na ba pare dañ doon jéem a répétal nii rek. waaw ah na ba pare tasoon na ba pare. fin bi lan d'un équilibre euh, bipolarisé taxawu Sénégal claque la porte du groupe parlementaire Yewwi aujourd'hui la famille politique d'Ousmane Sonko est consciente de l'effacement des valeurs politiques. yaa nga ca ba tey de diggante ba tas na diggante ba tas na Sonko Khalifa la guerre ouverte fi mu nekk nii nag gaañ yi luñ doon laamisoo di ko laam-laamee Baba Mbaye ce qui s'est passé aujourd'hui est l'expression d'une grande irresponsabilité politique nous avons considéré qu'il était important que nous euh, pour nous de nous retirer jëloon ngeen i xaar ñu naan le de wu leen fu ñu la bëggatul demal la ñoo xam te dëgg yéen nag xeex bi ñoom ñoo ko guddal génn sax ñoom ñi taxaw Sénégal ñoom ñoo ko guddal dem fu la jëm taxaw Sénégal n'a pas été retenu dans le bureau de l'Assemblée nationale nous sommes restés dignes même lorsque nous avons été lésés à la ville de Dakar ñoom ndekete retiré woon nañu WhatsApp bi de avant ñu yegg ci assemblée nationale bi. ndax loolu yéen ñi plumé ou bien c'est plumé. yéen plumé. deseetuñu ay ay ay kii. sur soit dafa ñëw ci super Linguère moom ay dëmboo nee na fu mu nekk maa ngi sa parrainage ba maa ngi def lu ma miin nee na li ko mënuma cee téye moom ay dëmboo nee na fu mu nekk nii lépp lu ay matukaay jël nañ ko ngir nag. responsable bi nekk ñoom 500 responsable lañ ñu nekk ci parti ku si nekk dina andi 100 parrain li mu gàtt gàtt gat taxawal na lépp nag ngir évaluer nombre de signature yi nga xam ne am na ko. bu rafet ay nitam toog waxtaan ak ñoom jox na leen programme am. xamal na leen fii laa bëgg a yóbbu maa ngi def li ma nii yàgg naa wër Sénégal nee na wër naa ko juróomi yoon senegal amul fenn fi ma maa ngi def li ma nii. super liggéey ay mooy wax. Fabrice bu jiite en bas la loo wax. wax ko ca kaw. wóor si yàlla. mu ngoog laa lion di Bawol moom ci boppam Vox Populi daal koy wax. ensemble vers Sénégal idéal la conversation nationale que va débuter Aïda Mbodj moo xam ne loolu. Mm. mon président Aïda Mbodj maa nga ca liggéey ba fu mu nekk li wutum signature Vox Populi ne guerre pro et xalifis la vengeance qui fait mal pour taxaw yeewu askan wi kon vengeance dëkk bu dëkk boobu dafay koy en ce moment nag John sama mbokkum dëngëj bi nee na à l'heure du choix les Sénégalais auront la maturité de choisir le meilleur. waaw waaw est que am nañu maturité boobee ba tey ah, est que maturité baa mi ngi fi ba tey. mi ngi lool Khalifa Sonko la rupture totale sëy ba tas na. zip. madame Fall. Oja. ana Oja. Oja ñu noonu. sama gisuma ko di ko romb. waaw yaa ngi koy romb romb lu waaye gis naa ko. gis nga ko. <laughs> lu la la ni ku gën a mu gàtt. se paie par kurtuka ku gënoon gàtt foofu. waaw gàttal kurtuka <laughs> rek. Xalifa Sall a ngi nii taxaw jaajaa ngay taxaw de fu mu nekk Abass a ngi nii Aba <laughs> Mbaye kii di dóor kii di kàjj kii di yëq. aywa jamono joojee kii nga xam ne mooy ay daa ngi nii commandant mi kii kan la Baba Sall maa nga jëlee kii kan la pendant qu'il se chamaille on emporte le gros du lot suus fi suus fii. awa. ban candidat mooy suuf si. est-ce que c'est pas Abdou Mbow. waaw mën na nekk Abdou Mbow assemblée nationale ah, groupe parlementaire. oui. waaw ah, mën na nekk ay Abdou. fi mu nekk ñoom waa da du wax na ñoom waa Benno Bokk Yaakaar fi mu nekk nii. seen affaire baax na li ñu xeex baax na. awa li ñu xeex doyul. awa lu gën a fës ci bopp xibaar yi Mame Mbaye Ndiaye. ma jóge na ko xaaral ma xool ana ana jox ma sa sa titre. <laughs> la ca gën a fës moo di xeexum cancer bi waa LISCA kuréel bi nga xam ne daf koy xeex ña nga woon ca mbedd tàggatu euh, kon nag jamono joojee doxu bi dañ ko boole ci activité yi ñuy amal ci octobre rose bi ñu nekk manifestation bi nga xam ne gis nañ ko bëggaan ngay dana ñu teew fa ñoom la ñuy bi fii ci réewum Sénégal daañu waxtaane it euh, li nga xam ne mooy ñeel wàllum hémodialysé yi fii ci réewum Sénégal en tout cas jàngoro la bi nga xam ne ni boo amul koppar daanaka faatu nga gën a jigee ndax nga mën a dund ak faw nga am lu ëpp fukki million suñuy koppar nga war koo mën a rek fajoo gëstu bi yaatu dañ ci ndax Alassane Baldé ci biir a xibaar caajaay nag jamono jii la jaaxal waajur ndongo moo di jigéen ñi ñoom ñu teelee génne seen école ba loolee nag daanaka yenn ci ay responsable association yu nekk ca gox ba ñu ngi koy yëkkati seen kàddu di daan xaafu noppi di ñaax waajur yi Alioune Badara Sonko dañ si dikk ci reportage tàggat yaram Sénégal doonante xaritoom ak Cameroun tey jii. yeneen jotaay yu euh, xibaar sinon muy euh, cancer waaye it euh, hémodialysé ñaari jàngoro yu nga xam ne daanaka boo amul xaalis dana yéeme lool ci yow. muy traitement bu diis parce que traitement bi dafa soxla xaalis déjà pour cancer bi rek yenn traitement yi boo koy jël. Euh, lu jëm ci ay vaccin kaay yooyu dégg nga fi ne benn dose rek presque six cent six cent mille francs mhm. genn wàllu million ak lu teg il faut nga am ko te loolu il faut nga jël ko semaine bu ne wala ñaari semaine yu ne euh, lu jëm nag ci ci dialyse bi gis nga ni mu chéré dans les dans dans le privé malade yaa ngi fay je pense soixante mille francs moment bi nga xam ne dans le public également gouvernement bi def na ci kéemtulaay kattanam ba subventionné ko ba dix mille francs ngay fay pour nga jot ci machine yi mooy problème mooy li ndaw si expliqué sax dañ lay obligé mettre ci liste d'attente nga toog di xaar et hmm. feebar yooyee mënul xaar deret yoo xam ne il faut ñu segg ko deret yoo xam ne il faut ñu raxas ko nga mën a nekkaat boo naree toog ab diir nga xam ne séance au moins il faut nga def ko ñaareel ba ñetti yoon dans la semaine hmm. mënoo toog di xaar lu yàgg looloo waral nag ñu war a multiplier centres yi un peu ci biir réew mi Euh, évoqué nga sànq euh, kawu Thiès c'est vrai que à l'hôpital régional am na benn unité bu fa nekk inauguré nañ ko je pense at yële ñu ñu génn. Mhm. Euh, mais y a un projet peut-être pour ne pas trop faire de publicité également mais am na projet boo xam ne am na ñu ko am et projet boobu mu ngi tënku ci dix ans yi nga xam ne monseigneur André Guèye bi ko falee évêque bu Thiès ba léegi ci la tënku parce que instant bi nii l'église de Thiès est en train de collecter des fonds. lu waay mën lu waay attan def souscription xaalis boobu la muy jëriñ mooy ñu fexe ñu am unité de traitement justement hémodialyse à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu du dërëm boo xam ne dañ koy dugal ci noos du dërëm boo xam ne dañ koy dugal ci mbuumbaay mais koppar la yoo xam ne c'est pour des projets bien précis donc hôpital Saint-Jean-de-Dieu dina ci am am na yeneen paroisse wala yeneen secteur zone rurale pour ne pas seulement se à la religion mais c'est des projets yoo xam ne bu taxawee ci wàllu école ci wàllu santé ça intéressera toute la population bi nga xam ne ñoo fa ne parce que ñun Sénégal catholique ak musulman yëpp benn lañu mhm. mais projet yooyu pour mu mën a antu également xaalis la laaj ku ci nekk war ci mën a barkeelu ku ci nekk war ci mën a def la nga àttan donc c'est peut-être une occasion justement pour en parler pour nit yi que faj genre jàngoro yi dafa dafa métti malade bi ci boppam dafay diis ci moom mbokku malade bi dafay diis ci moom am na ñoo xam ne seen alal yëpp dañ ko ciy def mais amoo amoo amoo solution pour mën a wér da ngay mën a demee noonu rek déjà gis nga cinq ak xayma bi ñu def boo bëggee yokk sa dund benn at ci at moomee calculer ne di nga dépenser au moins dix millions foo koy jëlee. Hmm? ku la ci mën a ku ko am. xanaa borom barke yi te borom barke yi sax du ñoom ñëpp. dina faju ba sonn mais après fa lay mujjee donc une fois de plus état bi lu mu mën ci wàllu googee na ko. def état bi lu mu mën a jàppale nit ñi également na ko ci dolli ñu ngi plaider même la gratuité du traitement du cancer. war nañu foo mën a yegg parce que am na ay réew yoo xam ne réussir nañ ko jàppale malade yi jàppale mbokk yi jàppale askan wi ci wàllu googee moo gën yenn yi mais loolu buñ ko defoon tey jii. xoolal lu diis la ñuy teggi malade yi lu diis également la ñuy teggal seeni seeni ay mbokk parce que justement dañuy dem ba solution dootul amati donc c'est important également moment yi ñu profité waat ci pour sensibiliser waat état bi def na mais na gën a góorgóorlu parce que yii c'est finalement des questions de santé publique te war nañoo mën a yegg foo xam ne nag état bi war na mën a gàddul nit ñi yenn yi nga am solo ñu waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom la ñu woowee waa REVAS regroupement des vrais acteurs de l'automobile fii ci réewum Sénégal seen bëgg-bëgg moo di ñu gunge mécaniciens yi nga xam ne ñoom la ñu yëkkatee fii ci euh, diwaanu Ndakaaru responsable yi nag nee na ñu faw ñu yokk yaatal projet bi nga xam ne dañ ko taxawal ca zone d'activité pour les mécaniciens yi maanaam fi ñu leen di yëkkati ak fa ñu leen di toxal euh, ndax nag daanaka mënees na ñu leen a yaatal ci fukki diwaan yeex ñeent yi nekk fii ci réewum Sénégal waa REVAS assemblée générale la ñu woote woon sa Tëngéej ñu Cheikh Cheikh Ahmed Tidiane Seck Mansour i naataango mécanicien yi nga xam ne déguerpissement dafa laal ci seen kaw fii ci région bu Dakaaru seen namuteef mooy ñu daal di décentraliser projet Zampas bi ci fukki ak ñeent diwaan yi nga xam ne ñu nekk fii ci suñu réew. ancienne piste comme ni ñu ciy waxee rek li fay bañ du ay mécanicien mooy ñi nga xamante ni su mécanicien yi nekkee ñoom dañuy ñëw ñaan leen nekk seen biir tabax fa def fa lu nekk. ñooñu suñuy yëkkati ñooñu ñooy am problème. ñoom mécanicien yooyu di taxaw ñooy jëfandikoo yi ci tali bii di fàttali njiitu réew mi digg yi nga xam ne moom la yëkkati woon ci wàll wàllu woto jëmale ci seen boor. mooy organisation boo xam ne mënul am xaalis ndax événement yi ñoo bëri suñuy cotisation rek bu ñu cotiser mënul lu ñuy def ñu le président Wade daf ñu jox ay oto génn jàppale président bii fi Macky Sall am na lu ñu waxoon mu ne dinañu jox ay oto. moom it ñu koy interpellé. dajaloo ci tamit lu soxal assemblée générale càmbaraat seen kuréel responsable yu bànqaasu REVAS yi bàyyeekoo ci fukk région ak yi fii ci suñu réew di leeral ne ñoom amut lenn lu ñu laale ci engagement politique. ci noonu la tontu kàddu ya nga xam ne moom la président bu union des chambres de métiers yëkkati woon ci wàll wi. mu ngaw mu di lu am solo ah ñoom waa Revas yu sàkku ndax nag bu ñu leen yëkkatee fii ci diwaanu ah, Dakar bëgg leen toxal feneen it accompagnement a am euh, gis nañu toxal nañu leen ñenn ñi am nañ lu ñu leen jox. waaye da ngay gis yenn mécanicien la toujours nee na dañ lay yëkkatee foo xam ne yow valeur dafa nekk ay millions la ñu jox la benn deux cinquante mille ne la demal day xaw a yéeme. waaw day xaw a mais peut-être loolu koppar googu dañ leen euh, ko jox rek jàppale leen ko pour xëy na ñu mën a toxal seen i bagages mais de indemnisation peut-être euh, ak yeneen parce que boo demee fële xëy na am nga suffisamment d' espace am nga suffisamment de jumtukaay. yoo xam ne war na war na laa mën a jàppale nga liggéey mais xëy na distance bi ak yeneen yi ci laxasu moom la ñuy diingat mais ak nu mu mënti demee euh, secteur automobile moom ay tey jii mu ngi absorber lu bëree bare bare bare ci lu waroon mën a nekk taux de chômage mi ngi absorber lu bëree bëri ci loo xam ne. mënoon nañ ko calculer ci déperdition scolaire maanaam ay gone yoo xam ne dem nañu ba seen njàng demul ñu obligé biire ci artisanat ci mécanique ci leneen ak leneen ak leneen donc secteur euh, euh, automobile secteur la bu am solo tey jii donc waa Revas ak lu mën a am war nañ leen mën a gën a dégg gën leen a jàppale également. Mm-hmm. parce que ñu ngi fiy def quand même liggéey bu am solo ci biir réew mi euh, li ci li ci xaw a ñuul rek mooy Sénégal. koñ boo dugg atelier ngi fa. loolu dem te yi ñu ngi ba ci kaw tali bi. c'est vrai que yenn point ya nga xam ne ñoom foofu la ñuy nekk se na c'est précaire parce que peut-être dañ leen ko abal mais attends dañuy gaare seeni oto ba ci kaw tali bi foofu lañ koy defaree tali bi nga xam ne peut-être nit moom lañ soxla pour doxi seen soxla léppay déborder raar nga gis garage boo xam ne lépp ngi ci biir. dañuy feesal ci biir di feesal ci biti bay gêner sax une partie de la circulation bu dul oto yi nit ñi ñoom ñooy teggi oto yi bëri na fii foo xam ne foo dem gis ko foofu donc ñoom également bu ñu ordonné woon tuuti ci seen liggéey amaana yenn yenn yi ñuy gis wala yenn yi dal seen kaw du métti c'est vrai que nag déguerpissement moom yàgg na ci réew mi te ñoom tam déguerpissement yëpp na leen yëpp goo xam ne xëy na li li ñu def moom moo koy waral parce que bu fekkante ne garage bi ci biir lépp lañ ko yemale mais garage bi day déborder ba ci mbedd mi alors que débordement boobu day indiwaat beneen situation boo xam ne lu ne xet na ci donc il gagnerait à ce que vraiment moom ñu am seen espace limité wu ci gérer la ñuy gérer bu boobaa tamit xëy na kilifa gi du gis ne lii désordre na kilifa gi du ràññee ne lii occupation illégale de la voie publique lu war a mën a dal seen kaw. Mm-hmm. donc ñoom également am nañ ci part de responsabilité pour ce qui est nag du recasement nañu xool neneen encore nu leen gën a jàppale c' est vrai que ku ci nekk wala ñenn ñu bokk jox nañ leen titre de propriété euh, procédure baa ngi continuer euh, am na nañu cité de l' émergence euh, cité de l' émergence cité de l' automobile fii ci ancienne piste bu Wakam ku ci mën a jàpp également promoteur bu ci mën a jàpp na na ci jàpp parce que ñoom également commencé nañu opération collecte de fonds pour au moins mën a euh, commencé seen i chantier euh, liggéey bi yëpp 3 milliards la ñu ngi ciy góorgóorlu souscription yi commencé na loolu tamit amaana beneen situation lay doon boo xam ne mën na sax bokk ci liy gën a moderniser secteur automobile mi nga xam ne ñoom ñooy defar oto te suñu oto yi bu dawee ñoom la donc également am na nañu solo ci biir réew mi lu am solo ñu dem sa caajaay ñu ngi ko doon junj ci ndorteelu bi la jotaayu xibaar ñu ngay xam ne ne comme foofee euh, tiitaange nekk ca moo di xale jigéen yi nga xam ne dañuy teel a bàyyi l'école en tout cas phénomène la bi nga xam ne ni mu ngay gën di màgg sa diwaanu caajaay googee association bi ñëwee impact euh, ñoom daal di say nag fëskee ne xar seen tànk tubay fex nañu seen kéem kattan dajale la yor ngir na jënd kay fourniture jébbal ko waajur ndongo yi ngir ñu jox ko seen i doom njàng mi gën a ñoŋ ñu ànd Cheikh Aliou Mbadara Sonko. association bi di impact di nakarlu jamono ji xale jigéen ñi ni ñuy teelee bàyyi école ci commune bu Thiadiaye. di ñaan parents yi ñu dugal seen doom yi école di ñaan parents yi ñu bàyyi seen doom yi école di leen encouragé te ñu bàyyi xale yu jigéen yi buñ leen teeree may ñu sëyi ñu leen bàyyi ñu jàng école ndax réew fi ñu toll góor ñi ak jigéen ñoo yem te góor baax na jigéen baax na. bu ñu sukkandikoo ci général à la retraite bi di Talla Niang nekk tamit président association bu impact jamono ji ñoom taxaw temm ngir dugal seen loxo ci.